Abdi bil faal yaay dundalaat yaakaaru mag ñeewaaw yaay sunu yaakaar sunu yaakaar yow ñoo ngi Kër Massar tey fii ci Jaxaay di nuyuwaat euh, Sénégalais yëpp tey nag ñu def li nga xamante ni loolu la ñu baaxoo la coalition Papa Djibril fal président mooy dem daje ak askan wi li nga xamante ni moom mooy seen njàmbat ñu mën koo gën a comprendre doon nañ ko wax di ko di ko ñaxtu léegi dañoo bëgg a ñëw pour saafara ko te bu ngeen ñu wóoloo le 24 mars 2000. 24 non la soppé réew donc euh, li nga xamanteni mom moñu banlieue bi. entre keur Massar ba fi nga xamanteni fi lañ nek tay muy illustrer fay jafé yi nga askanu Sénégal nek fa yi raw yépp li ñu éducation fi ñu taxaw muy lycée bi problème assainissement depuis plusieurs années danaka xalé yi mënuñoo jang, donc dañuy tok ay bari jaxlé kenn du y a lool nak dafa nekk indicateur manam day wone lajj go sur le plan de l'éducation non lañ sur le plan de la santé ndax hôpital bu jaxay bi tamit xam ngeen né dafa a mënta di ci sécurité ci santé ci walu éducation kon liñ leen euh, matale wuñu ko service public de l'éducation bu baax di am service santé bu baax di am service sécuritaire bu baax ñun nak li tax tay ji ñu nek candidat moy dañoo bëgg askan wi seen yoyu sa seen loolu ñu gi bëgg gi xam-xam pour xam yoon yi jaar Sénégal kenn dootu ko caxat-caxatee waaye dinañ ko mën a faj mën ko saafara ba nga xamante ni ndaw Sénégal ndaw yi jaxaay dinañ mën a jàng ci euh, anam yi nga xamante ni moom mooy li gën a mucc ay li ñu benn soxna wax témoigné ñu ko duñu amatuñu jot sax tëdd ci lal yi ndax fajar gi la ñuy jóg goudi la ñëwaat waye fajar go ak goudi gi problème sécurité bu mag mom moy posé wu donc lool nek lo xamanteni lu doy war la am problème mu marché tamit marché yo xamanteni yu mucc ayib lay doon yu dëppoo ak ñom seen bëgg-bëgg le cadre de vie il cadre de vie da boo xamante ni mucc naayib amu fi problème environnement problème inondation problème assainissement problème insécurité bo xamanteni foko tak wessu nako ndax am problème éclairage public donc yoy yëpp inshallah le 24 mars bu ngeen ñu wolo dinañ ko safara euh, ba nga xamanteni dootu len ko amati inshallah. allah dañoo ñëw ngir euh, teg teggi coono askan wi ñu teggi ko saafara seen jàngoro yi loolu moom moo ñu dugal ci li nga xamante ni ci lañ nekk te yëg nañ ne am nañ cawarte gi am nañ yitte ji am nañ xam-xam bi su ngeen ñu wóoloo dinañ soppi réew mi.